ñu bari am lu ñu yaakaare loo xam ne amuñu ko. Mhm. c'est-à-dire chaque fois qu'il y a des gens qui s'estiment victimes d'injustice si Jamra la ñuy ñëw. d'accord le dernier cas en date. mooy les cent quarante cinq migrants qui ont été mhm. bi leen diggoon ne naa leen yóbbu Dubaï utal leen liggéey. Mhm. te foras fii la ñu ñëw Jamra moo ko dox. ba état bi rapatrier leen à ses frais. Jamra ci loolu. encadré nañ leen ba si monsieur Mounirou Ly yàlla yàlla guddal fanam directeur ONFP. ñu former leen gratuitement finalité bi nag mooy ñu yóbbu leen ci structure de financement yi. ñu mën a am des activités de euh, voilà loolu xeex muy dox moo koy moo koy indi oui alors tey ce matin dañoo ñëw avec euh, yeewu avec euh, li nga xamante ni moom moo di actualité phare bi di littoral bi nga xamante ni njiital réew mi stoppé na mm-hmm. lépp li nga xamante ni moo di travaux yi ñu fa doon jëbal à rappeler que ni nag Ousmane Sonko bokkoon na ci cause yi nga xamante ni yàggoon na ko xeex porté ko plutôt on se rappelle ci benn vidéo bi nga xamante ni mi ngi doon promené wu ci plage bu Mermoz mi ngi ko doon wax ni ñoom bés bu ñu jëlee réew mi dañ stoppé lépp li nga xam moo di travaux yi nga xamante ni mu ngi ci booru géej bi tax ba nit ñi mënatuñu respirer air pur tax également ba lu ñu mel euh, di di di indi ay jafe-jafe bu baax a baax ci suñu wàllu dëkkin ci suñu environnement également mu mel la ñi ko doon tabax ci booru géej bi suuf si nga xamante ni également euh, jaayoon nañ ko ñenn ki suñu ay naataangoo wala boog ñenn ci nga xamante ni sax duñu ay sénégalais ay turc ak yu ñu fa doon tabax ay immeuble yi nga xamante ni Euh, ci ay coûts yu cher euh, voire même allant même ba ay 2 millions ak lu teg am ñu nga xamante ni ay bureau la woon ak yeneen ak yeneen lépp lu nga xamante ni état moom moo ko ci moom dañu way liggéey bi mais lépp lu nga xamante ni leen lu ñu jaayoon ngeen lañ ko stoppé. am nga ci waaw loolu day dama dégg nga ne Ousmane Sonko euh, yàgg naa porté combat bi ñun ñoo ko ko jëkk teel a porté. voilà ñun ñu ngi ko commencé porté en mille 2007 après la criminalisation du délit de trafic de doon préparé beneen. proposition de loi pour que ñu protéger les propriétaires foncier coutumier mooy sama maamu lébu yi sama mbokku léebu yi nekk ci Wakaam Ngor Yoof tout le littoral ba Bargny et cetera nga xam ne seen càggante mooy dañu doon suuf ci seen i maam waaye profité wu ñu woon de la loi sur le domaine national bi Senghor lancé woon pour def modalité yi ndax ñu mën a am ay papiers yu baax alors léegi nag y a des. Ousmane Sonko dafa récupérer seen combat. waaw daf ñu ci fekk si rek je pense que. da ngeen ci waxtaan ngeen ci gis. ci moo tax ñun ba ñu yëgee ne porté na ko. Hmm. waa Jamra yëpp a kontaan dañu ne eh, pour ñun day lu kenn mën ñaara ko ko dax alors euh, la ñu doon xeex nag di ko kaas ci jamono laay Wade ak Macky Sall mooy nañu protéger les propriétaires coutumiers parce que dañ yor ay këyit yu faible ay permis d'occuper Euh, euh, ak yooyu alors que promoteur immobilier véreux te am doole te gudd loxo dugg nañu cadastre impôt demeen dugg génn génn benn titre foncier xam nga scandale bi fi amoon yaa y a quelques années defe naa deux ans trois ans. Mhm. fii ci euh, Yoff la xaw ma Wakam. Mhm. promoteur immobilier ñëw woon leen kay ne fii maa fi moom te seen suufu maam la xeex bu metti gaañante grenade lacrymogène gendarmerie ñu ne yii nag daf fi war a jeex pour mu jeex. na état bi accompagner gratuitement les propriétaires d'héritage euh, foncier coutumier pour ñu am këyit yu baax kon nag mesure bii régime bu bees yi jël ñun Jamra dañ ci ànd à cent pour cent parce que y a de victimes yu ñu jaay doole la ñu moom ci littoral bi surtout sama mbokk mool yi ñu ñu nangu ko téye ko kon nag ñoom bu jëlee mesure maa ngi dégg un responsable d'Escos di ko wax mais corniche ouest bi ak corniche est lu ko dalee Cap Manuel wàcc jaar ginnaaw place place des enfants wër wër port bi dem ba Môle 8 ak dans le sens inverse romb Soumbédioune yéeg ba boru Magic Land contourné ba monument de la renaissance ba lépp ndar képp nee nañ ñoom mbooleem lu fa amoon ci ay travaux nañ ko suspendre mhm. Jamra ànd na ci à cent pour cent te jam Jamra ngi soutenir cette initiative d'accord kon c'est une manière d'auditer mhm. le littoral bu ñu paree nag ñu xam ku moom ki euh, kii euh, kees ki appartient à qui après na ñu xool ku nekk ci yoon yoon bàyyi la nga continuer nekk ci yoon mm. koo xam ne da fa ñëwoon doon jaay doole ay néew ji doole mm. yoon mën la mën la mën laa yemale yëgoon nga ni xale yi temps yi dañ lay surnommé l' expert balistique dinaa ah. propos yi nga tani woon ci manifestation yi fi mujj yi ni bal yi nga xamante ñoo faat ñenn ngi du bal yu jógee ci suñuy force de défense de sécurité waaw waaw loolu mooy Euh, borom toog muy dox yi ñooy wax wax yu yooyu il se donne aucun. xale ci ci borom toog muy dox yi lañ la boole de. waaw waaw mais expliqué naa la que c' est l' inverse depuis 1983 ñu ngi xeex muy dox te effectivement mu ngi dox. on a un livre qui va faire le recensement de tous les xeex muy dox. alors ñoom bëgg lu yomb ak paresse intellectuelle mm-hmm. moo tax ñu wax loolu parce que maa ngi ko euh, teniroon ses propos. Mm-hmm. le 12 février 2024. euh, à l'entame de notre point de presse pour dénoncer et exiger mmh. l'expulsion mm-hmm. de cette lesbienne mm-hmm. vice-présidente de l'intergroupe LGBT du Parlement européen mu di Malin Anna Borg foofu nag laa ubbee ginnaaw bi ñu masaloo euh, njaboot yi nga xam ne dañu euh, lorule euh, fa laa ubbee ne am na un militaire expert balistique Jamra ngeeg vidéo bi mu wax fi lii damay gàttal rek parce que temps bi jeex na ñu ngi ñaan état bi loolu mu wax nañ ko jël au sérieux gëstu ko point mu am ay dof <laughs> yu jóg nag ne Jamra de expert balistique nañ léegi foo leen ko mosee dégg ñu wax ko dañu ne am nañ vidéo benn expert balistique militaire mu wax fa lu garaaw na état bi jël vidéo bi convoqué waa ji ñu entendre ko ba xam li mu wax ñu saytu ko ba xam lan la loolu laa wax hmm. fan ngay mës benn waa Jamra bu taxaw yëkkati le plus petit doigt ne un expert balistique parmi nous waxi dof day day dégradé nit bàyyi leen wax yooyu. mais ni nga ko waxee woon kat entendement boobu la ci ñenn ñi di ah déedéet da ngay am entendement bu normal rek parce que dama ne non dama ne y a un expert balistique militaire qui a dit ceci ceci et cela j'ai la vidéo te vidéo bi jox naa koy autorité de la sécurité qui m'entendent nañu ko gëstu ba xam le bien fondé de ces déclarations point. fuñ toll ci gëstu waaw ñoom nañu daal di jël loolu askanale ko Jamra pour bëgg lu yomb rek. Euh, bàyyi leen loolu ça c'est c'est écœurant ça. xale yi sama page yi maa ngi maa ngi maa ngi bloqué li ma bloqué depuis barke démb suñu conférence bu lee war na ma 320 cent arrogant mais bu leen bloqué nag déedéet non am na ay boy Pastef qui m'ont qui moom mis de un peu de baume au cœur ndax dañuy ñëw dugg si suñu page engage un débat vraiment citoyen démocratique du ma bëgg sax débat bi jeex et c'est des jeunes patriotes mais yu am teggin am yar il arrive très souvent sax nga gis kenn ci gos yooyu convaincre ma ba ma reculer ne ko ah nangu naa li nga wax nga dëgg loolu moo baax mais bul defee ne yow balaa ngaa dugg ci débat rek foog nga saaga foog nga traité nit ki da naafeq ils n'ont que ces mots là naafeq lapoto boobu ñu ngi ko jëlee ci seen oustaz bu dof bi le Akhenaton la xaw ma ak ak la mafia politico médiatique ñett yooyu daal la ñu am comme, comme, comme, comme, argument. Ah, Alors, mais je continue de souhaiter la bienvenue oui. aux, aux, jeunes patriotes. Ils sont vraiment dans tous nos supports. ñu nga fay dugg guddi ak bëccëg fi mu nekk nii maa ngi toog nii. Mm. mais wóor na ma ne bu ma demee Sepas fekk fa ay commentaires. Mm. dinaa leen tontu. soit ngeen convaincre ma. Mm. wala ma convaincre leen nañu continuer loolu. di teg lépp ci teggin. comme seen président gis ngeen ni mu amee teggin yaru muy Bassirou Diomaye Faye moo tax dama ne il est venu au bon dafa ñëw au moment où il y une perte de valeur une déliquescence de de des valeurs yi fi mag ñi baax ñi bàyyi te jeunes yi waroon ci accroché Diomaye nag ci premier pas am mu ngi mel ni luy dekk loolu. Mm-hmm. dem na sukk foo loxo sëñ taxa mu rëy ci moom ba mu yëkkati de haut symbole islamique jox ko. Mm-hmm. mu jógee di fa def la même chose fële ca dégg nga euh, Tivaouane ñu ne déetawaay Aminata Mbengue Ndiaye ba bi nga kii un peu souffrante te mm-hmm. dafa am problème mu tànk. ba mu jógee ñëw di ko sargal. Mhm. après la prestation serment mu daal jóg dem dogale ji ko fekk ko fa. loolooy yar mooy teggin. Mhm. le respect des personnes âgées. alors na roy ci Bassirou Diomaye Faye ci yar ak teggin mhm. te ngeen bàyyi di saaga ci réseaux sociaux yi. d' je pense que ni sa conseil boobu xale yi déglu na xale yi nag du père nag xale yi dañoo mën a tooñ nag. Ah, xale yi da def comme man ni may def ak ñoom rek bàyyi leen ñu wax lu leen saf. Ah, soo paree nga baal leen du dëgg àdduna amul solo. Mm-hmm. ñoom nag lu leen neex la ñuy wax commentaire yaa ngi nii. Mm-hmm. Euh, lu leen neex la ñuy commenté mais ñu nag yéen ñoo fax quand même ñu ngi leen di remercier Koura non Koura t'en fais pas léegi sama xarit nga. Mm-hmm. yow ñoo fax donc di remercier également voisinage Gélawar euh, Fatou Fall Papili Euh, Aminata Diop euh, euh, yéen ñëpp ñu ngi leen di remercier ci kóolute ak safoo bi ngeen safoo programme yu Sénégal 7 TV lu ñu def rek neex na leen lépp lu ñu leen dëgtal également saa su ne ci programme yéen ngi koy suivre te looloo yéen yéen suñu force am ñu seen fay ba tax na lu ngeen ñuy wax rek da ngeen ñu koy baal man nag dama xaw bëri histoire tuuti mais quand même euh, voilà ñoo faax donc di remercier bu baax a baax kilifa gi ci jaar bi nga jaar ci plateau bu 13 minutes de vérité tout en espérant que ni euh, diñ fi waxtaanee neex na leen te également kilifa gi jot na leen leeral ci position yi nga xamante ni am na ko temps yi bu mu juróon fi ab coow donc di la remercier bu baax a baax di la ñaanal jàmm teyit it euh, di ñaan ñu dajawaat incha allah ci yeneen plateau waaw mais lii waa ji titré moom d' accord ma ci de ay lynché après ses propos. jili Mbaye la de. Euh, euh, Djily